décision boobu nag ñu ne lu ko waral dafa am benn ñàkk yëg-yëg euh, am na ci ay kilifa yu mag a mag yoo xam ne dañu nekk ci état bi ñu togg ak ñoom ñu wax ñu ko te maanaam defuñu si dara muy loo xam ne quand même nañ ko également amul communication fii ju waaye gii ñu ne ki nga xam ne moo ko jiite wala ki nga xam ne moo wax ne moo ko jiite nawul kenn doo ko woo ba jot ko doo ko message ba jot ko au niveau au niveau euh, aussi amul maanaam du ministre du kenn koo xam ne maanaam euh, tey jii boo amoon militant boo xam ne tey jii dafay feebar wala muy bëgg dee boo ko woowoon tey jii dina dina la jox juróomi dërëm ni la euh, demal nga dimbalee ko sa militant yi wala nangam nangam donc loolu mu nekk affaire boo xam ne doy na waar ñu gis aussi ni ndaw ñi sonn nañ trop ndaw ñi dañu gëmoon de la république gis ni ndaw ñi ñu ngi souffrir ñu ngi gis également ne mag ñi vraiment ñu ngi accaparé waxuñu mag ñi comme ni ko monsieur le ministre Serigne Mbacké ngay waxee léegi waxuñu mag ñi nañu quitté parce que nag mag baax na cim réew waaye mënuñ jël Sénégal aussi bàyyi fi payi rek ñu daal di accaparé lépp ku ci war a retraité ñu reconduire alors jeunes yaa ngi fii taxawaalu alors que dañu am compétence pour liggéey dañu am compétence pour jariñ réew mi également ñu gis ne euh, maanaam déggoo amul ci biir Benno Bokk Yaakaar xeex beeg xuloo beeg yu nga xam ne kenn xamul lu muy niru moo tax ñun dañuy dañuy poser un acte xam ne moo jiite benn bokk yaakaar muy le président de la république bu ñu sañoon dañuy toog moom mais tooguñu ak moom parce que dañoo bëgg mu defal ñu dara wala dañoo bëgg mu jox ñuy sant yàlla lii ñu yor suñu biir kër président Macky Sall joxuñu ko gouvernement joxuñu ko gis nañ li muy liggéey wedd wuñ ni liggéey na bu toogee ak ñun nag liggéey bi dana gën a yomb bu fekkee nag dafa bañ a toog ñun dañ toog ci suñu cadre ndax rappel kenn moom ko libéré yooyu ko moom Euh, suñu ministre Serigne Mbacké Ndiaye moo ko jiite on se sent là-bas gis nañ fa suñu bopp jox nañu cër ñu toog foofu liggéey bu Ablaye Wade ne cëpp ànd ak doomam nga ni ko ñëw ni ko niix fokk ko ci ko ci ay loxoom yóbbu ci kaso bi bu deewee dina am soxla de boo amee crise cardiaque Macky dina am problème bu toog bu ëpp màggalu Touba même bu ci amul boobu problème yëpp amul amul ko njariñ